di am euh, mbégte di rafetlu ndaje mi nga xam ne tey syndicat yi amoon nañ ko ak ministre de l' éducation nationale mu aju woon ci digg bu ñu joxe woon wane ne balaa trente juin incha allah dinañu pare lépp luy xaatim boo xam ne day jëmmal euh, diplôme bu jàngalekat bi am muy CAP muy CAP euh, day jëmmal aussi école yi nga xamante ne si dañ fa nommé ay chef d' li ñuy li ñuy tuddee nomination maanaam xaatim ko ba ñu mën a jëriñoo ndombo go ndombo tànk goo nga xam ne takkal nañ leen ko donc lañ loolu lañ fi daja woon tey ñu joxe ko ci ni mu gën a rafete euh, ñu rafetlu ko parce que dafa di loo xam ne jàngalekat bu nekk loolu ngay xaar maanaam luy jëmal sa carrière sa sa joxoñ gi nga xam ne moom nga war a dox jëm euh, beneen bi mooy euh, ministre bi ak ñun nangu nañu ne li ñuy tuddee way xarale yi war nañ ko mën a jëfandikoo ci biir école bi surtout rawale la ci carrière jàng jàngalekat yi way xarale yooyu nag bu njëkk ay kër lañ doon jëfandikoo léegi dinañ àgg fi ak juróom yooyu dana dañ ci ay kayit dana dem ci xarala yoo xam ne dana gën a gaaw dana ay jumtukaay la yoo xam ne jàngalekat bi dana gën a dana gaaw a àgg ci fi mu bëgg àgg ndax kayit yooyu nga xam ne mu doon jaar ci suuf léegi am na fu muy jaar foo xam ne muy muy gën a gaaw beneen bi aussi mooy am na lël boo xam ne war nañ ko def ci biir mois d'août bi euh, lël boobu nag lépp luy jafe-jafe yoo xam ne dañ ko signé woon na nguuru Sénégal ci 2022 bi yi ci desoon yi nga xam ne jëmalagu ko ñu waxtaane xool nu mu koy jëmale yi nga xam ne aussi ay tomb yu yees la yoo xam ne dafa dugg ci biir école bi ñu waxtaane ko aussi ba utal ko ay saafara yoo xam ne danañ ko def jàngalekat yi aussi syndicat yi am seen yu bees yoo xam ne aussi indi nañ ko parce que da leen a dab ñu mën koo waxtaane ci biir euh, lël boobu waaye nag tomb ba ci ëpp solo mooy ñu ñuy tuddee euh, jàngalekat yi ñu ber man loolu noonu laa koy tuddee mooy les décisionnaires ber googu ñu leen ber aussi pour ñu ñëwaat ci biir rang bi ànd ak mbooloo mi euh, droit bi nga xam ne moom la ñëpp am ñoom ñu am ko ndax ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu liggéey kon waruñoo traité kii nii di di keneen kii beneen yoon boo xam ne mu lañ ko traité ñoom la ñu tuddee les nañ ko proposer yooyu donte sax joxe woon nañ ko bu njëkk ak nguur gi fi jaaroon mais comme nguur gu bees ñëw na ñu yëkkatiwaat ko incha allah indi ko yaakaar naa buñ ci jógee dañu am école boo xam ne dana ànd ak dal